képp ku doon layam-layame ne Sonko wax wala waxul Sonko joxe ndigal wala joxewul ndigal Sonko rek lañuy ñuy topp Sonko rek la ñuy déglu bu Sonko joxoñee fu Sonko joxoñ fala ñuy topp Sonko joxoñ na Sonko ndigal na ndigal li wàcc na Sonko décidé na wax na ak ñun wax na ak yeneen candidats yi aussi pour ngeen xam ne Sonko xeebul kenn waaye décision bi mu jël nee na du décision xol maanaam xoolul ne kii moo ma neex wala kële laa bëgg wala kii moo ëpp xam-xam dafa ne dafa jël décision bu cohérent décision boo xam ne daf du indi benn parparloo décision xam nga nag bu ñu nekkee ci ay groupe doomu aadama yi da groupe dafa am nu mu laloo dafay am numéro un dafay am numéro deux dafay am numéro trois lan motax ñu len di tanné nonu c'est pour encore numéro 1 bu galancoré numéro 2 ñew numéro 2 bu galancoré numéro 3 ñew donc sonko waxatina ak sénégalais man nak damay faram patch rek li nga xamné mom la wax li du ay waxu ousmane tunkara du ay waxu parparlo du ay waxu isa jene du ay waxu parparlo du ay waxu Ngagne du ay waxu parparloo du ay waxu El du ay waxu parparloo du ay waxu Amadou Ba du ay waxu parparloo du ay waxu Biram Souley Diop du ay waxu parparloo waxu kilifa gi nga xam ne moom moo jiite Pastef te ñu naan ko Ousmane Sonko mu sell mi moom moo wàccee ndigal tey dimanche ci ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru janvier néna basiru jomay fay la tan Ousmane Sonko néna na ji la tan ndax bo len gisé ñun bi sax li Ousmane Sonko wax ndax wa dëg yalla xam ngeen ne t-shirt bi défaruma ko digënté wax Ousmane Sonko bi ak par discours t-shirt bi défar nako parce que comme ni mu ko waxee c'était le choix cohérent candidat yi nag bari nañ ci Sénégal bari nañu am na ñu bari ñoo xam ne ay candidat wu Macky Sall am ñu bari ñoo xam Macky Sall daf leen tànn ba pale rëccu démb rek doomu siif boobu ngeen xam muy Cheikh yerim dak duul ci Sénégal ñëwaat na yónniwaat nañ ko waaye Ousmane Sonko tontu na ci nee na bu ñu tànnee candidat di gis ay nit yu génn di jéemaane candidat bi di ko xas di ko duulal di ko fenal waaye li ma bëgg ngeen xam mooy Ousmane Sonko nee na Basirou Diomaye Faye Basirou Diomaye Faye la tànn pour mu désigner pour mu doon candidat à la présidence de la république moui candidat ou, euh, ka ex Pastef parce que ben ben doomu adama buy mer donc Jomai 2024 Bassirou Jomai, Fay, la Ousmane Sonko tan. Bassirou Jomai, fay la Ousmane Sonko tan. gars nak ay défi nos chanteurs non rappeur commencé leen ma defaral ay clipu Diomaye 2024 commencé ma defal ay musiku campagne ku musikam dàq moom lañuy ñuy tànn pour campagne bi incha allahu rabbi koo xam ne moom la Ousmane Sonko tànn muy Basiru Diomaye fay ñun ñëpp moom la ñuy woteel moom la ñuy àndal bu kenn dugal beneen ndoxu potit ci sa biir bopp gars yi Ousmane Sonko nee na Basirou Diomaye Faye la tànn tànneef bi nag mooy tànneefu cohérence mooy tànneef bu ànd maanaam li nga xam ne moom na parti bi di doxe defu ko tànneefu ne Basirou Diomaye fay moo gën a muus Sénégal yëpp walla moo gën a baax Sénégal yëpp ndax suñu yeneen candidat yëpp baax nañu ñoom Cheikh Tidiane Dieye ñoom euh, euh, Déthié Fall yeneen ak yeneen candidat opposition bi bari nañu waaye Ousmane Sonko nee na Bassirou Diomaye Faye la tànn la nga xam ne tey moom moo nekk suñu ñun suñu priorité mooy fal candidat bi nga xam ne moom lañu ñu tànn au premier tour dinaa leen woon doomeeraam ji nga xam ne moom la euh, Marème Eh, eh, doomi ram la nak ndax mom bayam moy ndeyam ak bayam ño bokk bay dafa jël nak enveloppe mom sa bu joggé rek dañuy def li tuddu émission commandée dañuy commandé ab émission ñu jox ko xaalis mu dem ci émission ba jema nelawal xelu sénégalais yi dinaa leen wax limu def demb ni mu tuddu yërim limu def demb ñu ngi koy ko ñu ngi ko tuddee ingénieurs yi maanaam ñi def political science ñu ngi ko tuddee predictive programming maanaam programme def prédiction technique la boo xam ne c'est utilisé par le mas maçonniques maanaam jaay ñu ay idées yu faux des fausses idées pour ñu mën leen dugal ci suñu biir bopp yi changer suñu ay attitude pour ñu mën a accepter li nga xam ne éventuellement mën naa nekk ñoom dañuy inventer ay fen bëgg yow nga gëm fen yooyu bëgg yow fen yooyu nga instore ko sa biir xel bi nga mën koo d'accord maanaam fen bi bis bu amee nga mën a ne ah lii mënoon naa am loolu la Yérim Seck defaat démb ak may Maimouna Ndour Faye ñaari doom yaram lañu yoo xam ne les plus grands mercenaires boo leen fàttale ko bi Ousmane Sonko génnee livre mercenaire bi ba léegi ñaari doomu xaram yu toj seen nangamtaanu nangamtaanu nangamtaanu ndey yi ñoom ñoo fi génnoon di ko jébaane di ko tuddee salofis ba léegi ñu ngi ci seen ligne droite boobu Yérim Seck la ba léegi ak Maïmouna nduur du tey lañ ko tàmbali te duñ ko arrêté ndax c'est des mercenaires c'est des francs ay doomi araam lañu yoo xam ne dara jaa jéemu dara dara jommu leen kale cagala boo xam ne dafa am jëkkër am ay faram di tëddee sax ci candidat présidentiel yi am na ci far kale moom baayam siifkat la moom siifkat la doomam siifkat la maanaam doom la boo xam ne dafa judd ci inceste inceste mooy lan moy mag ak rakk ñu séq lu bon ba jur ci ak doom tubaab yi dañu ne la plupart des temps kooku day am pathologie waaye xam ngeen Yérim lan mooy pathologie moom ndoxu koko ndoxu duul moo nekk ci biir bopp bi bis bu ne mu génne duul bu bees te benn duul nak du ci bokk ak sa morom te dara jombu ko mom man na ne tay asaman si dafa weex bu suba mu ñewat mu ne la même asaman si tay dafa xonk te asaman sa ngi tal aduna bi yeb di xol Nini jallo neena na ngarabul bul way wai wallahi walai saga sama xol la jeex ndax lan saga tax lo doomu adama lan mo tax saga am moy xol bu jeex moy indi saga ndax ñak jom wul Cheikh yerim sek aduna bi yëpp xam ko mu juddu ci juddu yi ni mu gëna ñaawé ci juddu ndax mom bayam ak ndayam ño bok ben bay mom mu ñew mu Sénégal nak ne damay ñew yak Sénégal. dama bëgg ma ñëwaat ci sénégalais rek ma ne nañu concentré wu totalement sur basiru jomay fay ki la Ousmane Sonko tan nee bép sénégalais nee bép partisans Nena na nit bu gëm projet bi doomu adama bi la bëgg nga sa carte la nuit du 25 février 2024. mille vingt quatre mi Diomaye ko do ko ci moko Sonko nena. Basirou Bassirou fay Moko gëna ko mom a mi ngi environ 2007-2008. waaye musul xam nit bu ko gën a jub nee na Basiiru Jomaay mii moom moo tax Basiiru Jomaay dem prison ndax Basiiru Jomaay dëgg la doon wax jëmale ko ci yenn magistrat yu corrompu yi looloo waral ñu jël ko tey dugal ko prison waaye nee na moom Ousmane Sonko xamoon na ne moom amaana band yi dinañu gàllankoor candidature am loolu la bajo kamar a def lolou ngeen gis tapale bi nga xamne ne PDS ak waa APR ak ñoomin seen ñu ngi koy jema a manoeuvrer fan assemblée nationale ñu naan yaayo nenañu dañuy jema a jiji gëna baax ci Sénégal ñi gëna ñi gëna set comme Cheikh Tidiane Koulibaly ak ñenen nenañu ñoñu Amadou Ba mo leen corrompre muy ay fen yu toy xep ndax ñi corrompre ci Sénégal ñun ñëpp xam leen te ñu bëgg sénégalais yi bàyyiwaat leen xel te ñu bëgg sénégalais yi xam ne le président Ousmane Sonko c'est l'homme idéal dañuy woowaat doomu sénégalais yi ne leen dem leen jëli seeni ay carte d'identité leen encore ñu ne dem leen jëli seeni ay carte d'identité ngeen daas fanaanal te yéen sénégalais yépp ngeen xam ne amul benn pexe bu war a mën a tax Macky Sall ak bandiyam yi di jéem a ay élection wala di ko paas yenn sénégalais aussi ma ne leen génn leen ci diaboliser wala xeex opposant yi bu ma nee opposant nag opposant la wax ndax Ousmane Sonko nee na leen dina am ay doomu aadama yoo xam ne dinañ leen soxla ñu ànd ak ñoom donc bàyyi leen jéebaane ñi nga xam ne amu benn preuve jusqu'à l'extinction du soleil qu'ils sont corrompus et qu'ils ne sont pas des opposants bari nañu corrompre ci opposition bi bari nañu baaxul mais am na ci ñoo xam ne nee na ñu bàyyi ndax suñu ay allié lañu duñu suñu ay opposant duñu suñu ay ennemi ndax Sénégal lañu bëgg a jël te Sénégal pour jël ko il faut ñu boole ci sénégalais yépp te loolu dafay waral ñu jël par bi tegee ko boor gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di yemal waxtaan bi fii di leen bàyyi yéen sénégalais yi aussi ngeen apprécier li président Ousmane ko wax bu amee dara loo xam ne fàtte nañ ko wala ñu war ko cee yokkaat dinañu ñëwaat ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñu def ko balaa loolu nag wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.